ñëw sax man na entreprise laa yor quoi ay Europe fii laa nekk mais dama dama jiite ay nit may liggéey quoi c'est mooy entreprise boo xam ne par exemple dugal ay conteneur même am naa conteneur buy waaj a ñëw mais bon après lañ koy décoller mu yee xam nga day ndey kii dinaa soxlan sax benn secrétaire boo xam ne te barki alxuraanul karim boo ko fekkee Europe day watt ay olive billahi wallahi wa taalaahi day watt ay olive di ko dugal ci saako yi weer bu deeyee ñu fay ko 1000 euros mu ne moom day jiite entreprise day dugal ay conteneur lan moo ko fi jar man de man damaa xamul man yenn duul yi pour lan la loolu lu waral loolu lu fi jar loolu ah lan moo fi jar duul man laa xamul. mais jaaykatu keccax nga neel damay jaay keccax jaaykatu madd nga damay jaay madd jëmbkatu karoot laa mais man baara njindi laa damay jënd ñu may fay deux cent cinquante yoruma sama yaay wérul ceinture bu ma takkee sama tubéy sax aw ma ko moo soolaa laay takk sama tubay wala ñoom boo ma bëggee ci nii te yàlla tax ñu sëy te xam naa boo sëyeeg man doo ko rëcc mais il faut nga gondi ko ne ko da ngay dawal ay 4x4 ay Mercedes ngay jaay da nga jiite entreprise boo xamante ni ay oto lay defar te yow yaay chef bi yaay signé oto bu fa génn rek sa sa tur la jaar mu doog a génn bu la ñëwee fekk la fi ndeke yow ab maçon nga wala soudeur métallique am na nu muy demee sax ngay tur ci mbedd yow doo rus ñaata jigéen lañ ko fi def jigéen ñaa ngi ci live bi ñaata jigéen lañ fi ne la la fi nit doxaan ne ko man nangam laay def nangam nangam nga ñëw fekk ko marché Sandaga muy jaay fëgg jaay wala ay caleçon ñaata nit wala mu nekk jaaykatu soble. ñaata nit la ko fi ay góor def ci ay jigéen loolu lépp nag ñi ngi dox seen maa yi nii pour tëdde leen boo ñàkkee fayda nag dalay xoy benn vingt cinq mille bu mu yoroon rek nga ne waay yow noo mais kii waaja la kii bu yorul woon du mayee vingt cinq mille xam nga vingt cinq mille dafa bëri ndeysaan Sénégal te fii du dëjjaw ndayam man damay xëy jaay mille euros vingt cinq mill du tuuru ndayam koo ko may Sénégal mu foog ne milliard nga yor te fekk loolu liggéey na ko ay semaine wala weer dajale vingt cinq mille yooyu fa xëppale ko ci benn bis toog ko defee nag fa lay amee sa occasion katt la fa nag tëgg appartement katt la nga yàqu après ci ngay dëkk découvrir ne doomu xaram bi ndeke tekkiwul sarab ndeyam sa ndaw jeex xaalis moo tax baaxul jigéen ñi dañ leen di nax rek wéruñu ay dof lanu xam nga kan moo gën a bon léegi yaayu léegi yaayu léegi yi ñoom dan naan la eh nabu ki fi ñëw léegi lu muy def yow lay seet ah, nga ne ko waaw mais moom lu muy liggéey non moom day réparer ay téléphone yaay Sandaga la nekk ay téléphone lay réparer mais nit ku baax la de borom bu lekkale yow Nabou ni nga ñàkkee fulla jigéen day rëy ba Nabou yow looy doy jaaykatu defarkatu téléphone ah te su wër yi nekk fekk ñeneen ñu tekk ñi yow yaa katti sa ndey dëgg-dëgg bul ma xool sa bopp bu katt ndeyam bi kattal ndeyam ci biir su ko defee Nabou nag mer nag boo ëllëgee mooyu pro yi bàyyi jaaykatu téléphone ba si yaay yee gën a bëgg xaalis ci àdduna bi ah su ko defee nag nabu nag découragé ndeysaan ci àdduna am di wër ko am xaalis pour lu neex yaayam wala du dëgg ah kenn sëyatul te yàlla tax sëyi borom xaalis yëpp par contrat la contrat lañ koy defee par contrat xoolal sëyu léegi comme dañ koy renouveler comme ay kayit comme ay kayit yu ne renouveler trois mois nga tas def idda mu jeex deux mois ñu takkaat la nga dawalaat quatre mois keneen renouveler la nga tas mais na ko yor ay documents yuy renouveler te ñiy sëy te yàlla tax sëy ci dignité sëyu ñu ci alal sëy te yàlla tax rek ñoom la seen sëy yi yàgg te ñoom ñoo gën a duré borom xaalis yépp dañuy tas di juboowaat lan moo ko fi jar doo am bànneexu sëy mukk ci tolof tolof lañ ngay dëkk parce que la nga visé baaxul mbëggeel dugalu la ci xaalis moo la ci dugal ak dërëm bu sa yaay bokk bu sa yaay bëgg mais léegi boo leen mënut a jox dara seen doom yi lu mu rafet rafet rafet dan naan la xanaa yow da dof xoolatul loolu Pro rek moo tax xale yu jigéen ñi ko man Pro laay xaar Pro laay séyal footballeur yi la xool ministre yi doomu président yi jeex na maçon waxuñu ci dara feeraay ngay def kattal sa day lan lay def lu may doyee jambukatu karoon man yow xamoo sa xetu silib de da ngay jaay ndox duñ la sax faale toroxal gin lay toroxal pare saa yi nga woo ci ku mel ne màggat wala ndogoy bu la xeeloo barki Serigne Babacar si da ngay bëgg a bënn miir bi dugg ci biir ndax loolu mooy yow moom xamoo sa xetu silib ak ñoo bon jigéen ñi te bëgg xaalis moo tax bëgg xaalis loo ci gis foo jaar nga joxe sa lëf wala nga juutu aadama dina la kaa xam nga lan moo waral loolu ma leen di kaa parce que yow nga nekk jigéen benn 16 ans nga teel a bëgg koy xanaa kooku 23 ans day kaala woo koy wala mu wut ci ndom ma digg di ko takk ñaar ñetteel bi mooy di ans xoola xale yu jigéen yi fi am bitig yépp di ans nga investir di ans nga am bitig 17 ans nga commencé jaay di ans nga commencé dem Dubaï di dem Siin di dem Dubaï dem Siin jaabante Maroc jëli ay ay bagages dugal ko ci conteneur laal ay hôtelu cinq étoiles yow sa papa amul xaalis sa yaay amul xaalis yow liggéeyoo xaalis bi tax ñuy wax foo koy jëlee ministre yi doomu président yi ay joueur di la kat di la ko jox ngay jox sa yaay di tedd ci 17 ans 16 ans nga am loolu lépp te yow dajaw ndeyam sa say mbokk dañoo pauvre nan xoolal loolu bari na Sénégal Sénégal du fa jeex 16 nga dem Dubaï dem Siin laal sa bitig bu riche am sa xaalis bu bari di jaabante ci hôtel yi te yow sa papa boo ko gisee da nga koy yéene sarax ak sa yaay foo mën a jëlee loolu yow ba am loolu fan noo mën a def nga juutu nga joxe nga saddata wala yaa ngi kattante ku am xaalis mu la koy defal bari na Sénégal du fa jeex ñëpp loolu la ñu wër parce que say seen yaayee ko d'accord ñooy nangu loolu foo jële xaalis bi amoo jëkkër kenn takku la amoo jëkkër kenn takku la sa yaay amul sa papa waxaale wu ma ko sa famille pauvre nan pauvre boo xam ne foo ko natt weesu na ko mais yow fexe nga ba 16 yi nga am si sa baay amul ak sa yaay yow am nga ci bitig bu riche boo xam ne nii quadrat mètre yu bari la yaa ngi dem Chine di dem du baay yaa ngi dugal ay conteneur di dem ko ñëw di liggéey ba jëm sa yaay di ko jox ay dix millions par trois mois xanaa yow boo nekkee xale nekk seize ans ma nekk sa yaay boo ma joxee dix millions te man mii di sa yaay ba ma la juróoy ba tey mënumaa téye deux millions lu dugal sama loxo dinaa la am ngorug laaj la yow xaalis bii nii ana fan nga ko jëlee da ngaa investir bitik bitik bii ana nan nga def ba investir ko fan la xaalis bi jógee ba ngay dem Dubaay ak Siin di ñëw mais loolu lépp intéressé tu xaalis bi rek père dafa famille dëgg-dëgg noonu la war a def foo ko mën a jëlee man mii di sa yaay dund naa ba toll nii musuma téye deux millions yu mat fan nga mën a jëlee xaalis bii nii yow te amoo jëkkër amoo dara loolu demande yooyu dafa jar nga leen koy laaj ñoom mais amatul kenn dootu ko laaj teeti kenn dootu ko laaj teeti ne xaalis rek moo leen neex amul lu ñuy laaj teeti te nag yàlla nee na bu si yow man xiyaam ah, kilifa gu nekk dana la laaj nan nga sàmmee woon sa njaboot nan ngeen taxaloo yow man nar naa metti de sax borom alal gën a sonn parce que taxawaay ba la muy metti metti ak la muy tar tar tar tar tar tar borom alal yi ñoo ñu fa yàggal yow man xiyaam bu ngeen déggee taxawaay ba na muy yàggee xam nga lu ko waral boroom alal yi ak ñi yàlla joxoon pouvoir jox leen nguur ak boroom alal yi ñoom la yàlla doon wax naa leen sa alal ji fan nga ko doon dugal fan ak fan ak fan bi si yow man xiyaam beneen affaire la buñ walee buftu ba ñëpp ba ñëpp dugg ñu xar suuf fi ñëpp génn nekk ay danku taqalikoo ñëpp def taatu neen ku nekk ni la sa yaay jure woon noonu ngay toogee amul xool awra kenn waaw da ngay gis sa lëfu yaay sa yaay di gis sa koy ah nga gis sa koyu papa sa baay di gis sa koy sa lëfu yaay nga gis di gis sa koyu papa mënoo ci dara ku nekk taatu nen ngay def ni sa yaay juree woon bisu yowmal xiyaam nga taxaw nag ñu commencé nag di def ay balance keroog la tànk di wax fu mu demoon keroog la bët di wax li mu gisoon keroog la nopp di wax la mu déggoon gémmiñ dana wax lan la génne woon ci lamiñam ah euh, sa tànk dina wax fi mu demoon sa awra dina wax fi mu duggoon cër yépp ay wax bi yow mal xiyaam ku nekk moom li nga liggéey nii lan la koy defee am aadama moom day ñëw ñu ne ko taj aadama malaaka mi nga ubbi waaw kay yaa fi doon def nangam nangam nangam ah, génne ay awra yi woon nit ñi nangam nangam nangam nangam nga tëj sa yàlla xam na li nga def lépp mais dalay woo ba nga ñëw ñi yàlla bëgg a suturaal bi si yow man am ñi yàlla bëgg a suturaal yàlla da leen di tànn ci mbooloo mi danaan la aadamo ee eh, nga ne la bayka mu ne la kaay déglu leen ma de nga toog ci wetu yàlla yàlla toog nii mu ubbi sa list bi ne la aadamo nga ne ko ah, mu ne la lii lépp yaa ko def yaa génnee awra jàmmoor yaa sàccoon fii yaa def